parce que les Sonko là sont avec les, les, les tous les je suis en contact direct avec les di ah ñoom ñooy méttaram ñoo koy dimbale nee na moom ñoom ñoo bokk xel toj rek ray rek dóor rek duma rek sàcc rek ça c'est son équipe Sonko jomb naa xam baax ay militaire la ne ñoom la ñoom la déggool ba mu demee Guinée Guinée Guinée Guinée Bissau daan naa diw far yàlla ñu làbbali kooku ba mu bëgg falu muy bëgg a dee yàlla toroxal ko mbokk yu àndaloon naan je je Gomes Gomes au Niger j'ai stocké ne xaw ma ban ko muy jéem a raatale pour ànd ak yooyu taal Sénégal taal Afrique taal Mali Sonko c'est un terroriste et il est l'élément des djihadistes fu pétrole attention Sénégalais yi Sonko mooy mercenaire bi nga xam ne moom la gars yi yaakaar pour taal Sénégal pour dugg Sénégal nangu suñu pétrole bi bàyyi leen ci xel Sonko sàcce na suufu Sénégal yëpp bi mu nekkee impôt domaine léegi léegi suuf amatul xel mi yëpp ci pétrole bi la ko teg barke alxuraan Sonko a écrit un livre sur le pétrole du damay fen Sonko a un livre sur le man jomb naa fen kenn doon damay fen man jom bi daa feeñ Sonko yéen déggu leen déggu leen wala déggu leen je pose une question dama damay fen wala déet kon xam nga fenuma ku dégg olof nag baxal naa man olof dama dégg olof dama nii damay fen wala loolu kay nee man damay fen damaa posé benn question et je réponds la question ku xamul nag wala nga ànd Sonko mën nga jéem a dénaturer mes pro dama ni ndax damay fen Sonko a écrit un livre le pétrole ndax damay fen loolu lu jaral leeree mais ma ne ne damay fel man mi vous savez très bien non ku dégg olof baal naa la mais dama ni dama ku nekk naa fekk it baal naa la ku nekk envoyé de Sonko it baal naa la mais damani ni ndax Sonko bind na benn livre sur le pétrole ndax damay fen wala déet ñëpp xam ne bind na livre sur le pétrole te jàngul pétrole dara impôt et domaine la jàng droit dem ENAM dem def impôt et domaine fu mu jàngee pétrole yow doo doo ingénieur pétrole yow liggéeyoo ci benn service buy mais parce que mercenaire nga damay fen wala déet bind na livre sur le pétrole wala damay fen wala déet loolu nag ku jéem a dénaturer damay wax naa fekk nga seetaane nga billaay ku ko jéem a xool nee nag bëgg comme ni ñu demoon bële bopp yi rek naa fekk nga seetaane barke alxuraan ndax moo ne damay fen mu mel ne man man damay fen mais xool ma façon interprétation yooyu rek mais Sénégal mu metti réew mi nu ñu koy defaree mais li ma wax dafa leer dama leen posé benn question ndax damay fen ñu foog ne ma man damay fen am boor yëpp ah day dof ñu ko foog donc ñooñu laa bëgg a arrêté dès maintenant ndax naa fekk da mën parce que boo dee ndax bind livre sur le pétrole ñu ndax damay fen mooy dama ne est-ce qu'il a écrit un livre sur le pétrole ou pas est-ce que je mens ou pas waaye loolu bu ñu en français je traduis en français Sonko a écrit un livre sur le pétrole ku déggu olof rek dama jàng olof mais da ngay corriger El man déggu benn langue lu olof lu leer nañu sama sama la ma sama propos kenn mënu ridiculiser wala nga interpréter ko neen te ma toog daa est-ce que Sonko a écrit un livre sur le pétrole ndax damay fet mais mais est-ce que ça n'a même pas de sens de dire que moi je je dis est-ce que je mens ou pas est-ce qu'il a écrit un livre sur le pétrole mais lu jéeree loolu mel ni man dama ne man c'est-à-dire que vraiment Sénégal moo metti ce pays là il est difficile parce que l'honnêteté intellectuelle c'est clair tout le monde sait qu'il a écrit sur les personnes par des étrangers donc Sonko est un mercenaire non y a les djihadistes y a les américains y a les soviétiques lui il aime l'argent il mange dans tous les râteliers il est partout Sonko finalement il demande des cotisations nemmeeku tuur cotisation à Ziguinchor il aime l'argent et il est fainéant Sénégalais bu leen wax ne man dama bañ Sonko bañu ma de état Sénégal kon chaque pexe man dinaa tontu yee leen leeral leen ma ni la CEDEAO a pris de bonnes mesures pour que la junte militaire organise rapidement des élections démocratiques. On lui avait donné 18 mois et l'élection présidentielle devait se tenir au mois de février. Maintenant, la junte militaire demande 5 ans. 5 ans, c'est un mandat. Et ceux qui manifestent là veulent qu'on les militaires là faire ce qu'ils veulent. Donc, vous la CDAO et ses textes. loolu rek la je pare de ça sur la situation internationale ma gis ay nit ñu yóbbu leen ay place de l'Obélisque ñu taxaw fa nan dañuy jàppale Mali Mali lu ko dal lu ko dal militaire yi ñoo ko teg te dañoo bëgg loolu ko dal jeex ñu tànn ñi leen neex militaire yi bu ñu bëggee dañ nekk candidat ATT demoon na ba ñëwaat nekk candidat ñu wul ko fal ko mais jël say fatal teg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 dina la topp toppee la ba nga bëgg a dee dina la topp la toppee la ku fi def guddi la topp toppee la ko wax waaye ñooñu lu ñu woon daan wéy nañ sañu loi criminalisé na nga tëb tëb di ko wax comme saa veille élection de campagne seytaane naafiq rambaaj wurkat sóobmaan dóorkat Sénégal yi foo lay terminé suñu réew mi nañ ko bëgg su réew moom lañ am Sonko daa bëgg militaire yi jël pouvoir bi moo tax mu lëkkaloo woon ak capitaine Touré de la gendarmerie comme capitaine Sanogo di mu defoon jël pouvoir bi au Mali Sonko est un putschiste Sonko nee na militaire malien yi ak militaire guinéen mu ngi wax ak ñoom cere ji bu ci lekkul dama ci xëpp suuf loolu mooy Sonko xam na ne du ma sa président Sénégal incha allah rabi ndax ku bëgg a taal. kuy taal koo xam ne boo gisee quatorze morts doyaloo ci deret ngay dund di ci lekk comme dëmm kooku kooku kooku bu militaire yi pouvoir bi da ci kontaan comme mu xam ne mënul falu moom moom village la war a yore village bu na la yore moo tax mu xëccoo ci mairie ba de man mii laaj présidentielle dégg naa benn mu ne oui amul représentativité moo tax demul élection locale mais kii liste majoritaire derrière Jean Baptiste Diouf kële oo Jolof fal ñu fal ko sama gars yi ñëpp lañ fal mais man xar ne weesu weesu mbote dama bëgg nekk président du Sénégal nu ma bëggee nekk président di xëccoo ay gox-goxaan ay mbedd ak ay ruq fu nekk chef de quartier chef de comme Sonko chef de village yow nga bëgg laaj réew mi di xëccoo ci ay chef de waaye xam nga ni da ngay xam na nga bëgg xar ne weesu mbote. nekk naa mais dafa baa mi nekk naa ministre nekk député nekk avocat international macha allah nekk yaakaari Sénégal nekk l'homme du 23 juin lu may dox de xëccoo réew lu des ci man lu may yore Sénégal ci jàmm ci xéewal ci bëgg ko ci jàppale ko taxawu ko Sénégal jëm kanam xale yi am liggéey jigéen ñi am ci lu jàpp mag ñi mu noppali ko am alal yoo xam ne di nga dee Sénégal naat Sénégal jëm kanam je vous remercie. S'il y a je réponds je suis pas comme l'autre là moi je suis prêt à répondre à toute forme de question waaye tapette boobu du répondre benn question moom moom déclaration de presse point de presse dem il n'a aucun respect pour la presse moi je à votre disposition pour la vérité toute la vérité et rien que la vérité billahi prenez ah, C'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous présenter. Bon, première question. Il appartient au chef de l'État, président de la République, de nommer un premier ministre au Sénégal. Ça ne peut pas dépendre, je crois, des résultats des élections à Dakar. Parce que Dakar n'a pas été gagné par le président aux dernières élections territoriales de 2014. sa coalition a tout fait pour reprendre Dakar récupérer Dakar des de Taxawu Dakar devenu Yewwi mais sa coalition a échoué mais sa coalition a gagné ailleurs partout ailleurs presque. Alors, le Premier ministre, il appartient exclusivement au chef de l'État de le désigner, de le choisir en toute connaissance de cause. Il a ce qu'on appelle, il a léeg-léeg qu'il a ce le pouvoir discrétionnaire le pouvoir discrétionnaire choisir un premier ministre personne d'autre dans ce pays ne peut choisir le premier ministre à sa place c'est clair les résultats de Dakar. Le président sont les critères qu'il a retenus Sur quoi se fonde sa décision Il est seul maître à bord. La deuxième question porte sur Ziguinchor. Des assassinats, des prises d'otages, nos militaires tués, pris en otage par des bandits. le vendre à coût de milliards. Et ça, comme vous le savez, les militaires protègent le territoire national. On ne permettra à personne d'occuper une partie, une parcelle du territoire en disant ici, c'est nous, pour nous, le, le Sénégal n'a pas accès à cette partie du territoire. Non, on doit, c'est le rôle des militaires, sauver, sauvegarder l'intégrité du territoire national. Aucun centimètre ne doit échapper au contrôle de l'État souverain. Non, il faut que force reste à la loi. Que nos militaires, c'est vrai, ils meurent là-bas, mais c'est leur mission. La mort d'un militaire, c'est vrai, c'est va avec le métier. Ils ont choisi cette profession noble, pas de faire des coups d'État, pas de prendre le pouvoir et de prendre les milliards, mais de défendre tout le territoire sénégalais et tous les Sénégalais. Et ça, c'est important. Et si vous me le donnez, je vais me donner le temps. Mais il y, a, toujours d'appel. Chaque seconde, il y a quelqu'un appelle. Je cherche ce Je vous, je vous donne les résultats de Thiès. Parce que je ne veux pas parler sans donner des, des preuves. Mais on ne permet pas. Chaque seconde, il y a des appels. Avant que je ne cherche un autre appel, rien. Mais tous les jours, moi, je suis comme ça. C'est malheureux, mais c'est... Mais madame Son. Et vous savez, les, les des appels, c'est les gosses de qui m'appellent pour m'insulter. Dès que que je, dès que je C'est des, des, fauves, des, des tigres qu'on a envoyés vers la Diouf. Ils ne peuvent plus se retenir. Ils ne veulent que me tuer, me bouffer. Mais boy, daf leen dànk seen waa ji di dara ba leen ko ñëw ci ñun ànd ak ñun vraiment c'est vrai vous me permettrez même de saluer la mémoire du colonel Malick Cissé, qui est un parent très proche, qui vient de disparaître. On l'a enterré aujourd'hui à Nguitch, son village. Et présenter ses nos condoléances à sa famille, à son épouse Diaye Sall, la fille de Serigne Abba Sall de Louga, à sa nièce Adjaratou Nétérine Ndoye sa famille qui m'est très proche nos condoléances euh, à à la nation qui a perdu un grand soldat le colonel Malick donc pour terminer en deux minutes si le temps nous le permet s'il n'y a pas d'autres questions prenez le micro vous présenter vous donner la question populations, de les défendre, de descendre dans la rue. Parce que c'est pour la plupart des terroristes. J'ai retrouvé maintenant les résultats de Thiès. Vous avez fini C'est bon J'ai répondu. Vous qui sont condamnés seront éjectés. Comme Khalifa Sall a été éjecté. Moi, maintenant, j'ai retrouvé l'élément de Thiès. <laughs> bien sûr. S'il est condamné, il sera, écarté. Je ne sais pas, mais s'il a été, de par le passé, s'il a été condamné, ah, il va disparaître. Ah oui, il sera éjecté. Il y en a qui savent qu'ils seront éjectés maintenant. dans le fauteuil de maire où je serai en prison. C'est pas la peine d'être pressé. Attention, avec des blindags. Tabaski viendra.

dix mille trois cent vingt si vous quinze mille neuf cent et Abdoulaye mille trois cent vingt vous à vingt cinq mille vingt six mille à peu près vingt six mille voix alors que Yewwi n'a que dix huit mille à vingt six mille alors que Abdoulaye Dièye avec sa liste parallèle, il a 10 320 voix. Et avec le recours qu'il a introduit, soit on annule les résultats proclamés dans ces de vote, où les présidents des bureaux de vote étaient des instructeurs de Yewi, qui ont permis à des jeunes de Yewi de voter jusqu'à 23 heures sans autorisation de l'autorité administrative, le préfet. Donc le vote est illégal et nul. Par conséquent, la Cour d'appel de Thiès va annuler le vote dans ses bureaux de vote. Commune de Thiès-Est, Yéwi, 7468 voix. Benno Bokk Yakaar, 6692 voix. Ablaye Dièye, 6547 voix. Abdoulaye Dieye seul talonne Benno et Yewwi alors de Benno. Si on additionne les voix, Benno Bokk Yaakaar 6692, Abdoulaye Dieye And Siggil Thiès 6547, vous êtes à 13 000 alors que Yewwi est à 7 presque le double. Ça, avec ça, on dit Thiès Thiès tombe, Thiès, Thiès, Thiès. L'axe Dakar, Thiès, Durbel. Si on fait le décompte, même si on fait l'addition, mais Yéwi minoritaire à Thiès. Commune de Thiès, j'ai dit, résultat provisoire, ville de Thiès, j'ai donné. Voilà les résultats. Donc Thiès n'est pas encore gagné. La bataille de Thiès aura lieu. Ne soyez pas surpris, les résultats sont là. Les résultats résultat provisoire, proclamé par les juges. Kon Babacar Diop, il n'est pas majoritaire à Thiès. Même sans qu'on annule, si on fait le point, ce sont les listes parallèles peut-être qui ont empêché la victoire à Thiès. Si, si Beno était ensemble, on ne parlerait pas de Babacar Diop. C'est comme dans beaucoup de communes. dañu bàyyi di bàkku di tëb di dal te duñu dara ñoom actuellement ñoo jaawu jàll fa lañ toll duñu Balla Gaye duñu seen Sène duñu Bombardier taxaw naan maay Bombardier moo fi man maay roi des arènes te yow amoo sax 30 pour cent yaa ngi ci ay 25 pour cent waaye may ñu jàmm waay ku bëgg laaj leneen waaw waxal. waaw. oui. aux élections à Thiès. Mmh. Euh, vu que c'est la première fois que les élections locales euh, sont faites, euh, sont faites autant pour moi, au suffrage universel direct, est-ce que véritablement parler d'une addition de voix d'une coalition qui a été scellée authentique et liste parallèle, est-ce que cela pourra euh, rapporter quelque chose Est-ce que les résultats ne seront pas euh, maintenus ainsi La deuxième, l'article vous avez évoqué la question de l'homosexualité. Est-ce que, en tant que juriste, vous croyez que cet article est clair dans la tête des Sénégalais Parce qu'après dire, la crainte de la population sénégalaise n'est pas donc d'interdire euh, catégoriquement euh, la, question de l'homosexualité, mais ils ne veulent pas que leurs enfants soient euh, attirés dans cette affaire. Et on sait, le mardi dernier en France, on a voté une loi qui, pénalise, donc, la conversion des, homosexuels en France, par exemple. Est-ce qu'au Sénégal, la crainte des populations ne devrait pas primer la bienveillance de la loi, bien sûr. Et vous, en pour que les Sénégalais se retrouvent euh, une interdiction en répondant à la question. Ce n'est pas, la peine. Vous avez tellement développé pour répondre vous-même à votre question. Mais je vais quand mon sentiment. Parce vous avez déjà développé votre sentiment. Malheureusement, ce n'est une question. Mais je vais commencer par là. Non, si, non, j'ai compris, ça là, vous avez été trop long. Euh, vous savez, il y a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. On vous dit dans cet article que vous citez que les actes contre nature sont punis de telle peine à telle peine. Et si vous n'êtes pas un cancre, Si vous n'êtes pas un mulard, si vous savez lire en français, en français facile, vous savez que l'homosexualité est vraiment l'acte contre nature par excellence. Je dis, si quelqu'un n'est pas nul, il n'est pas, un cancre, le français. Quand on lui dit que les actes contre lui, il doit savoir que l'acte Mais s'il y a des... que dans des manifestations comme ça, il y a tellement de cancres, il y a tellement de fous, il y a tellement de djihadistes qui ont d'autres préoccupations. Il y a d'autres qui sont pour la charia et nous ne sommes pas un État islamique. Si maintenant le peuple référendum demande qu'on soit un État islamique, ah on va criminaliser l'homosexualité. Mais ce sont des djihadistes pour la plupart, des terroristes qui cette campagne pour imposer l'État islamique dans ce pays. Cela aussi, ne le veut pas. Dès que nous soyons majoritairement musulmans, nous n'avons pas opté pour l'État islamique comme en Iran ou comme en Arabie Saoudite. D'accord Maintenant, l'autre question, là vous avez fait une erreur, monsieur. Vous avez dit que c'est la première fois dans les élections territoriales au suffrage universel direct. été élus, c'est les Mamadou Diop, les Papa Diop. Ils ont été au suffrage direct. On a élu les conseils municipaux au suffrage direct. Et les conseils municipaux se retrouvaient pour élire le maire et les adjoints. On a seulement changé. Maintenant, seul le maire sera connu. On n'attendra pas la victoire pour faire une réunion pour que le conseil municipal vote en son sein pour choisir un maire. C'est cela qui a changé. C'est le seul élément. Mais au suffrage direct, on a toujours élu les conseils municipaux, et régionaux avant et maintenant départementaux. Il faut ngeen wut xam-xam nit bala muy wax day gëstu et vous êtes mes amis je vous aime tant je vous parle. que vous fassiez des erreurs. Je vous vois toujours excellent, brillant. Je vous félicite. Mais je dire au total que Gatengalama Beno Bokoyakar. Félicitations à la coalition Beno Bokoyakar. Félicitations au président Macky chef de la coalition Beno Bokoyakar. Félicitations à tous ceux qui ont gagné et courage à ceux qui ont perdu. que la défaite d'aujourd'hui sera la victoire de demain. Que Dieu nous préserve. Vive le Sénégal. Vive la République. Merci. Merci beaucoup, Merci.